xam ngeen àndaar ji ma nattee injussatil xarakaatu xam ngeen àndaar ji ma natte dogub ngërëm bi ma sóob ngir wallal ko sun maam jaara ki tax ñu regg ci diine sun xol yi fees ki ngëm-ngëm njukkeel ko war ku fi dis gor yi basir ak baara ki tax ñu regg ci diine sun xol yi fees ki ngëm-ngëm njukkeel ko war ku fi dis gor maami basir ak baara yaa xuste manding ma jàll kenn dungewul fa nga jaari ku jaar fa taqati rib ban sa a dem sarsaara yaa xàll yoon wi nu jaari te dig jamuñ jaaraama sa teeni ndam dootu fi dey ngir yaa tax ñu am ay daara yaa xuste yoon yaa xàll yoon wi ñu jaari te dig jamuñ sa teeni ndam yu di dey ngir yaa tax ñu am ay daara yaa bay ci diine lu suural mbaakol jolof segu waalo jigéen ya boo yal na njaw nga bay ba dem gànnaara yaaram mu penkoo ki sowwu sa dooma jot sunu ruuyi farcet do taaj farcet do taal fi njub def fu jaare ay abraara say leera niitali bii daan defal nga ñooñ soodaani mbulak sukkeer aki làmbaay yaa sippi seen aw zaara sa rakka yaay li waral fii jumaa yi mel ni ki ay waañ foo romb ñuy liqaam gee di nodd kay kàbbaara sa fonk xuraan gaa tax ndaw ñépp di kaang fóore sa mbàndi xam-xam yaa duy dënni wolof yaag naara sa xàbb yaa xëy laabal suñ dandi xol ba mu sell sa doomu fóor suñu tër yi cuubeenu ay anwaara sa farlu gaay lu nu may sak sutura si yaa ñu ko sàngee teraanga yiw texe barke nga jox ñu cay angaara safarlu gaay li nu may sak sutura si yaa ñu ko sàngee teraanga yiw texe barke nga jox ñu cay angaara yaa xëy ca naajoo ba kër ñëw nga jox ko xeet wi ñu seerloo sa coono ba indi noflaay bi tax ñu war ciy kaara sa may ma nangu na samay ma nangu na yaa jëm la dànn yépp doon diiri yaa suur lu tax ba nu bàyyi laaxat di sif daqaara yaa muñ yaa tax ñu mucc ci tawte dëkkay sato ak i building jaaraama yow bu sa baali boo seelu woon dun mbaara sa kem amul dootu fi am yaa dond maam maryaama yaa meññ sunu isa mii ñu sedd tax duñ xaara yaa wéeru wéetal yàlla gëm ab dogal niki imraan moo tax nga am muusa mii fi julli géej tisbaara muñ mar wu metti na haajar sa dooma bënn fi zamzam yaay mbambulaan bu sa gàcceel nga biiru wal abaara yaa muñ lu metti na haajar sa doom ji bënn fi zamzam yaay mbaambulaan bu sa gàcceel nga biru wal an yaa gën fi soxnaak taara yaay delluwaay ku jéggi di roy keneen xelam maa des yaay ngir mu jub ku fi xeeñtu sa mboor ma raw fu jaara kon ñoo ngi ñaan ci sa su dégg gu waara yàlla nag nu dotti sa xiinu ngëneel yu rey li nga làmboo barkeeg ngërëm dëkk baawaan ci tam su dégg gu yaa rabbi salli wa sallim ala xabibika ahmad kon sëriñ Xaadim Fay sëriñ Sayar Kan sëriñ Daam Jaane man ngeen a dem toog te sëriñ ñang na dal di ñëw sëriñ Moodu Booy sëriñ Baara Géey